Je suis le colonel Babacar Sadir Diouf et je suis secrétaire général de la haute autorité des aéroports du Sénégal. donc euh, suñu exercice bi ñu def tey nii en fait dañ doon ñëw pour tester suñu suñu capacité de réponse parce que xam ngeen ne euh, conflictualité nu mel ci àdduna bi aéroport yi dañ leen di viser dañu nekk cible boo xam ne terroriste boo gis rek day seet ni bu ma dalee ci aéroport bi dina am résultat te dinañ bu ma sax ñëwee sànni fa benn pétard rek dinañ ko wax. donc xam nga yooyu moo tax ñun il faut ñuy tester suñu bopp pour mun a aar suñu moomeel mooy aéroport bi ñu dénk nga xam ne bés bu dara xewee fii dinañu mun a tontu ba nga xam ni képp ku fi ñëw boo koy xool sax dina la dissuader ba doo jege si donc moo tax ñu mobiliser woon li ñu am yëpp pour xool ndax plan bi ñu tëral ndax liñ ci bind baax na ndax buñ ko doxalee dina mun a euh, aar aéroport bi moo tax ñu def kii moo tax ñu mobiliser muy police gendarmerie douane 2AS LAS AIBD haute autorité ñëpp taxaw ci Air Sénégal ASECNA ñëpp ci jàpp ba nga xam ni xool nañu léegi nii li ñu def nii dem nañ ba arriver ci résultat bu baax ci exercice bi waaye tamit gis nañ ni que am na boor yoo xam ne il faut ñu ñu taxawaat ci gën leen a liggéeyaat. ba nga xam ne performance yi dina yokk foofu. waaw mooy boor yi ma wax sànq ci tubaab rek ni que il faut ñu fexee ba nga xam ni suñu plan sectoriel yi mooy ku nekk yow parti bi nga xam ne loolu lañ la dénk pour nga di ko xool nga liggéeyaat ko ba mu gën a méngoo ak plan d'urgence aéroport bi donc loolu d'accord nañ ne ñun ñëpp il faut ñu jàpp ci ku nekk xoolaat bosam pour ñu am cohérence d'ensemble bu nit ñi di ànd di intervenir. am na tamit yoo xam ne il faut ñu xool suñu force de défense et de sécurité yi nga xam ne ñoom la ñuy soxla ci moment yi nga xam ne violence am na dëgg ci aéroport bi ñooñu dañu bugg bu ñu ñëwee fii ñu mun a boole seeni capacité ak seeni procédure ba nga xam ne bu ñu toogee di intervenir ñoom seen biir day nekk ne yokkute lay indi waaye du fekk ne ku nekk rek da nga nekk sa côté di di di def li ngay def dañu bugg ñoom bu fu ñu nekk ensemble rek ñu yëg ni. capacité dëgg bu Sénégal moo fi nekk amatul kii fee la bokk kee fee la bokk donc yooyu moo am importance pour mooy li ñuy wax interopérabilité nga xam ne ñoom fu ñu nekk rek yokkute rek lay lay doon waaw donc euh, boo xoolee bi yëf yi tàmbalee bi ñu amee information bi ñun tout de suite dañuy déem a am les décisions politiques pour xam Sénégal lan la xalaat ni que loolu la parce que ñiy jël avion bi tout de suite dañuy commencer di laaj am yu ñuy laaj yoo xam ne dañ ne ko dëkk bi def donc ñun li ñu soxla xam rek mooy lan la dëkk bi bëgg ñu def donc loolu ñun bu ñu ko xamee rek après comme ni ñu def fii nga xam ne directeur généralu LAS nga xam ne moom mooy directeuru centre bi moom moo toog ñu ànd di jël décision yi fii ak moom ba arriver ci résultat bi ñu arrivé donc li ñu gis foofu mooy que laaj na rek ñu liggéeyaat timing yi pour gën a gaawal suñuy activité ak suñuy action mais bu ngeen xoolee action yooyu déroulé na bu baax ba ñu am résultat boo xam ne tane na même suñu déploré ni ko am na ñu ci ñàkk seen bakkañ am ñu gaañu mais xam nga ñun suñu liggéey fii li ñuy njëkk seet mooy nañu aar civil yi d'abord ñun militaire ak ay police gendarmerie ak euh, douane ñun moom ñun suñu liggéey lii la moo tax ñun amuñ ci xam nga li ci gën a neex ci yëf yi mooy mënoon na compliqué ba ñu tëj aéroport bi mais fi mu nekk nii fexe nañ ba nga xam ne dañu circonscrire activité bi ci benn coin aéroport bi après bàyyi li ci des muy tourner mais fi ñu amee ay euh, alerte à la bombe ci aérogare bi évacué na nit ñi mais après rapidement jëlaat nañu dellusiwaat parce que liggéey bi dañu war a fexe aussi ba bu mu taxaw donc loolu nekk na loo xam ne aussi war nañu saluer euh, ñi nekkoon ci aérogare bi ni ñu génnee ak ni ñu ñëwaatee jëlaat seen post ñu xam ni que vraiment loolu yëpp dafa bokk ci plan d'urgence bi nga xam ne moo nekk fii nii donc donc bi jarul woon ñu ci yéen force sénégalaise waaw force sénégalaise rek moo fi nekk parce que ñun suñu suñuy procédure boolewuñ ci beneen force parce que ñun am nañ suñuy capacité yu doy yoo xam ne lépp lu xew ci aéroport bi fii am na ñu ko mën a jël ñun ñu ngi fi am yoo xam ne suñuy procédure teg nañ ko pour service yi fi nekk nii muy LAS 2AS AIBD Air Sénégal naa ku ci ne am nga say procédure ba am nooy def li nga war a def wax nañ la ko bu mettee ba metti am na ñoo xam ne ñoom ñooy ñëw dolleeku ci gendarmerie ak police ak douane bi nekk fii nii mooy li ngeen gis force spéciale yi ngeen gis ak GIGN bi nga xam ne loolu kenn dootu leen présenté ti ñooñu mooy ñi nga xam ne ñoom ñoo ñëw dolleeku ci liñ doon def pour nga xam ne suñu activité bi ñuy def fii bu nu violence bi jógee ñoom tàggat nañ leen ba ñu mun a dékku violence boobu ba mun a ñëw def seen liggéey même bu dee ci biir avion la wala mu ñàkk rek ci biir avion. jëf wax nga de wax nga lu am solo d'abord euh, ñuy gërëm di di euh, jaajëfal acteurs yëpp muy laas moo xamante ni moom moo eh, exercice bi tey moo ko sabab moom moo moo def sabab bi mu nekk exercice boo boo xam ne dafa nekk réglementaire jël. tëbuñu rek ñu def ko aéroport niveau international yi dañu am ay charte yoo xam ne loolu lañ leen tegal dañ ko waroon def te ñoom def nañ ko loolu mu am mu nekk lu am solo mooy suñu aéroport bi euh, mi ngi euh, doxal nu ko nu ko euh, réglement bi xaare donc te doxal boobu ñu ñëw fii ñu am si ñoom ñoom ñu am si ndam muy réussir na détail colonel autorité de l'aéroport wax na ko sànq Euh, lépp jaar na si yoon euh, euh, fekkente ni am na ay jàngat yu ñu am yoo xam ne mën na gën a dox beneen yoon jàngat yooyu ñun AIBD loolu lañ seet en tant que représentant de l'État fii si aéroport bi te mu nekk aéroport boo xam ne AIBD moo fi tax moom la ko dëkk bi dënk donc su dënk boobu dafay tax ñu gën a xam ñaata la ñuy dugalaat ci koppar ci investissement naka la ñuy doxalee ba nga xam ne centre bi lépp lu fi euh, lu fi gàllankoor dinañ ko doxal ba nga xam ne su suñu ñëwaatee fii nag ñaari at loolu la ñaari at di defaat beneen centre ba beneen exercice te ñuy yaakaar nag te exercice rek lay nekk donc loolu tam ñu si muy muy nekk lu ñaan mooy mu yem yem rek ci mais si euh, fii nag ñaari at suñu def exercice mu nekk centre boo xamante ni lépp loo xam ne tey manqué na fi dina fi dina nekk euh, ñu ñuy wax ni euh, président de la République Macky Sall dafa ne dafa am programme bu mag mooy hub aérien du Sénégal fii mu nekk le premier hub aérien de la sous-région mooy Selebe yoon bu gën a mag si suñu euh, gox suñu dëkk yu ñu wër yëpp Ah, loolu nag suñ ko bëggee def si AIBD dafay nekk aéroport ëpp aéré donc AIBD dafa war a nekk aéroport bu gën a mag si suñu su région bi mais AIBD lu fi nekk du nekk AIBD rek dafay nekk yeneen aéroport yi AIBD dafay nekk fu ñuy fu ñuy tàmbalee lépp lu am AIBD mu am si yeneen aéroport régionaux yi te loolu ah, ah, tàmbale nañu reconstruction yooyu gis ngeen ko Cap Skirring fan yi ñu ngi continuer liggéey bi foofu Saint-Louis pratiquement d'ici ñaari weer dinañu pare te si si foofu yëpp dina am ay centre yu mel nii nga xam ne dinañu mën a euh, am peut-être pas de cette dimension la mais dinañu mën a am capacité yoo xam ne loolu lu mel ni su amee foofu dinañu mën a réagir donc loolu mooy moo doon fii suñu teewaay di euh, sant ñëpp di leen gërëm tam si seen teewaay boo leen bokkee tam si si mbir bi euh, xam xam nga aéroport sooy waxee taux de fréquentation dafay mel ni aéroport boo xamante ni nekk na aux norme internationales donc ñun tey fii Sénégal Sénégal tey aéroport yu nekk yu nekk euh, aux normes yoo xam ne kii nañ ko c'est Cap Skirring ak AIBD ñoom ñooy les aéroports ñu ñu déclaré normes internationales yu des yëpp euh, président de la bu mu ñëwee dafa gis ni aéroports yi ne sont pas aux normes décidé wul taf yi taf yëngal dafa ne dañuy reconstruire waat di di aéroport bu nekk pratiquement ñu dugal fa plus de vingt cinq milliards defaraat piste bi ah, piste bi su nekkoon deux mille kilomètres ñu deux mille deux mille ñu yóbbu ko ba deux mille cinq cent mètres donc pour que mu mën a jël avion yu gën a mag ah, avion roplaan yi di jóge tugal di ñëw directement si si si Saint-Louis di jóge tugal di ñëw directement ah, Cap Skirring suba su amee sama mbokk. Euh, ñaseen yi ñuy mën a jóge euh, Nigéria jóge fu nekk su amee euh, foofu noonu gam kii nag événement religieux ñu mën a jóge foofu ñëw directement la donc pro programme yi yooyu yëpp ñu nekk en cours pour redimensionner nos nos nos aéroports et les mettre aux normes internationales loolu suñ ko suñ ko doxalee ba pare loolu day day day indiwaat day soxaliwaat. compagnie aérienne yi muy muy Air Sénégal en interne muy nekk Transair mu yeneen compagnie pour ñu mën a définir ay lignes yu bees ñu ngi koy commencé gis ngeen ni Cap Skirring tey Air Air Sénégal pratiquement euh, piste bi bu ñu ko defaraatee dematu fa benn yoon par semaine mu ngi fay dem trois quatre fois par semaine donc parce que euh, euh, dafa nekk aéroport président bi lu muy wax mu ne dafa bëgg a démocratiser le transport aérien mais pour balaa ngay démocratiser le transport aérien da nga infrastructure yi lay jaar ba pare infrastructure yi ak sécurité bu ñu bu ñu war a dem ak procédures yi ñun loolu la ñu nekk di doxal suñ ko doxalee ah, looy wax dina fréquentation bi ak ak nombre de de comme ça parce que bu ñu gisee aéroport bu bees rek tey Cap am na deux vole internationaux par semaine deux vole par semaine Et tous les jours, il a au moins 4 à 5, euh, tous les jours, il y a deux au moins vol nationaux. Donc cela veut dire que piste bu ñu da defar rek fréquentation bi dafa dafa yokkeeku te loolu laa gëm si Tamba suñ si suñ ci paree loolu laa gëm Saint-Louis loolu laa gëm Saint donc loolu moo moo tax programme de réhabilitation et de reconstruction bi dafa am solo pour gën a mën a euh, soxaliwaat suñu transport aérien bi ba nga xam ne dem ak dikk bi dina gën a mën a yomb si Bonjour, euh, je m'appelle Ashkut Demir, je suis le DG euh, de la société LAS qui est en charge de gestion de l'aéroport euh, international Bézdien. Bon, euh, ça, euh, des exercices qu'on fait chaque deux ans pour comprendre la capacité de notre plateforme aéroportière de répondre des cas urgences Et on est dans le centre de gestion des cas urgence et, et de améliorer toujours les collaborations entre les différentes parties de l'aéroport, e, aussi bien les gestionnaires, euh, AIBD, haute autorité, euh, gendarmerie, police, mais aussi les, les, les parties civiles. Euh, je pense qu'aujourd'hui, euh, on a pu montrer euh, aux plateformes que euh, tous ces genres de euh, situations d'urgence, on est prêt. Et on a eu une bonne collaboration entre les parties. Euh, à la fin de l'exercice, euh, on a fait notre briefing euh, avec les parties concernées, toujours dans l'esprit de l'améliorer nos services et, nos, et, et, de répondre aux exigences de notre plateforme. durant cet exercice d'aujourd'hui, on avait e, quatre otages dans l'avion. Tout était e, libéré e, sans problème. Et les demandes des réviseurs s'est géré très professionnellement. Et bon, on a eu trois niveaux d'attaque. Malheureusement, vu le scénario, on a eu certains blessés. Euh, mais euh, la réponse des autorités, c'était toujours autant. Je peux dire, euh, c'était une réussite, oui.